ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bu mag bi di Mouhamed Bachir Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm ndax laawalu ñu ko ñaan loolu ñu ñaan yàlla ni ci moom dong la nekk ba tax mu ne ñu ci alquran ud'uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen woo leen ma ma wuyu leen wax leen ma seeni soxla ma taxawee leen ko walla ma fajal leen ko jalla wa ala bur yàlla subhaanahu wa taala moo ñu ne ci téere bi ne wa ataakum min kulli ma saaltumuh wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha bur yàlla mooy ki may lépp li ko ñaan bur yàlla mooy ki jox lépp li ngeen ko ñaan ngeen sàkku ko fa moom ba tax na bu dee fi nekk naan da ngeen di géema lim xéewalu yàlla yi du ngeen ko matal waaye nag dafa fekk ne rek doomu aadama la yàlla bindee mbindin wala melokaan bi nga xamante ne mooy lam ñu wax ci njeexantalu aaya bi rek mooy innal insaana naka doomu aadama bi de la zalumun kafaar dadi ki dëkki di tooñ boppam waaye dadi jëmm joo xamante ne moo fi nekk di weddi xéewalu yàlla yi ci la ko yàlla xéewalal du ñàkk mu am kuy laaj naka la doomu aadama bi di nekk fi di tooñ boppam wala ananu doomu aadama bi nekkee fii di weddi xéewalu yàlla yi ka bëgg laaj laajte bi ñu koy tontu di ko ne buur yàlla subhaanahu wa ma ñu bind gën ñoo xam suñu bopp bu dee moo ñu ne doomu aadama da di jëmma joo xamante ne daa dëkkee di tooñ boppam loolu nga dégg ci ne lépp li ko yàlla sant ne ko ñaan ma ko mu bañ di ko ñaan yàlla mu di ko ñaanee feneen walla ci keneen walla ci neneen loolu mooy xeetu tooñ bopp ba doomu aadama bi dëkkee di tooñ boppam kafaar mooy beneen jikko ba mu ràngoo mooy weddi xéewalu yàlla yi mooy ne yàlla dalay xéewalal xéewalu wér yaram nga jël xéewalu wérgu yaram bi di ko dem exploiter ci xeetu mooy yàlla au lieu nga jël xéewalu wérgu yaram bala yàlla wërsëgal nga exploiter ko falay jural yiw ak tiyaaba ak lalay njëriñ ci sa àddina ak àllaaxira waaye nga jël xéewalu wérgu yaram woowu dem taxaw nga ne dangay dekkil cosaan boo xamante ne doo ci jëlee dara lu dul mettitu yaram ak bàkkaar woo xamante ne buñ la ko wonee dangay ci saasi da ngay tuub jóge ko ci anam boobu sa xéwalu wér yaram bala yàlla may nga dem di ko defee dank kurpeñ di ko jëmale ci sa xarkanamu morom ñu ne loolu mooy xeetu la ñuy tuddee tàggat yaram moo ne mënoon nga ko amee ci feneen fu dul foofu kon jël xéewalu wérgu yaram bala yàlla baaxee yow doomu aadama bi nga dem di ko jëfandikoo ci lépp loo xamante ne xeetu mooy yàlla la loolu mooy weddi xéewalu yàlla yooyu kon ba tax na suñu boroom xam-xam su mag di ibnu jawzi rahimahullahu taala rahmatan waasiah moom de ci xeetu ñaani yàlla yamu ne léeg-léeg iblis day ñëw di jax-jaxal xolu doomu aadama bi mu am lam lay dee mu am lam lay xalaatloo waaye mu ngi nii yàlla baaxee na ibnu jawzi rahimahullah tontu ba nga war a tontu iblis yow doomu aadama bi rawatina yow jullit bi kon nañ leen bokk diglu la ibnu jawzi wax ne seytaane day dikki kenn ci yenn mu di ko jax-jaxal di ko laaj di ko interroger ay question yu terre à terre waaye ibnu jawzi nee na nanga ko waajalal tontu bi nga xamante ne moom la ñu ibnu jawzi bëgg a baaxee ngir ñu gànnaayoo tontu boobu di ko tontu seytaan seytaane ba nga xamante ne muy iblis moone ne keroog bu duggee sa xol mu di la jax-jaxal di la laaj laajte bu teeraateer boo xamante ne doo xam noo koy tontoo te léeg-léegi laajte boobu sax dina nuroo nii lu dëggu dina nu dina nuroo ni lu am dina nuroo nii lu taxaw su ko defee nga daal di reculer bàyyi la nga nekkee moo tax ibnu jawzi nee na rahimahullahu taala yen ko yàlla yërëm moom daf ñu ne fa ida jaa iblis fa qaala fa qaala kam da'awtuhu wala tara ijaba fa qul ana ata'abbadu bi du'a allahu akbar ibnu jawzi nee na kenn ci yenn bu nekkee di tàllal loxoom di ñaan yàlla ay at ay weer nee na iblis day ñëw benn bis dugg sa xol saraax ñëw farankulaayu sa digg xol mu di la laaj mu ne la waaw moo yow sax kam da'awtahu ñaata yoon nga ko laaj ñaata yoon nga ñaan yàlla ñaata yoon nga doon talal sa loxo naan allahumma ya rabbi allahumma ya rabbi ngay ñaan yàlla combien d'années combien de mois combien yaa ngi ñaan yàlla wara ijaaba te gisoo benn nangu ñaan balay wonne da ngay ñaan yàlla nangul na la ko léegi nag ah doo xool leneen doo dem ci diw doo mel nii doo takk lii doo dem fee mu di la joxoñ ay béréb bi nga xamante ne wallaahi summa wallaahi bés boo bàyyee tàllal loxo ñaani yàlla ba nga dem dugg ci orientation bala iblis di orienté ci sa biir mémoire mu di la ko xelal keroog sànku nga sànkute boobu nag ibnu jawzi rahimahullahu nee na la pour nga bañ a sànku nag la nga war a tontu iblis mooy fa xóot na nga wax iblis ana ataabadu biddu'a man kat damay jaamu yàlla ci ñaan nangu ñaan beeg bañ nangu beeg sama yoon nekku ci bu ko nangoo baax na bu ko nanguwul baax na waaye man damay jaamu yàlla ci ñaan moo tax yonentu bi nee na la ci maana hadis addu'a u huwa li ibaada nga bëgg a jaamu yalla rek rek rek rek rek waaw la ñaanal ñaan dafa bokk ci jaamu yàlla yàlla yàlla reconnaître ne jaamu yàlla la di ñaan yàlla loolu équivalent su jaamu yàlla la ndax yàlla day xam ne sama jaam bi kat wóoluwul kenn ci mébitam bi ku man amul kenn ku mu yaakaar ci mébétam ba muy ñaan ni man yàlla amul kenn ku muy xaar ci mébét ba mu mébét ci li muy jooytu ni kudut dut man yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na doomu aadama ba sellal xolam laabal xolam mu jàpp bi set julli ñaari rakk tàllal loxo yàlla mu di ko ñaan nee bu fekkente ne yàlla jëmm juy ruus la ñu ne kon jaam bu yàlla da koy ruus mu delloo ko loxo neen te defalul ko ijaaba maanaam nanguwul ko nanguluwu ko la muy ñaan yàlla day ruus a delloo loxo jaam bu sifran zéro yàlla day ruus jaam bu jóg te yàlla mayu ko ijaaba waaw ñu ne fa ida jaa iblis bala iblis dikkalee fa qaal mu ne la kam daawtahu ñaata yoon nga ko ñaan moom yàlla wala tara ijaaba te boobi léegi gisuloo nangu ñaan gisuloo mandargay nangu ñaan gisuloo la lay tegtal ne la ngay ñaan yàlla nangu na ko te bi léegi yaa ngi continuer di ko ñaan moo ne doo dem ci paate walla ci yoro wala ci eh, gaay yi ma xam te ngeen xam leen ah léegi-léegi ñu ne bàcc si télé ku bugg lii ku bugg laa ku bugg laa ku bugg mel nii ku bugg mel nii ku bugg mel nii mais yow defaral ko sa bopp ñu ñi gis ko moo gën nga di toog ci pénc bi di ko annoncé di ko wax après nga bëgg nit ñi bàbbee ko ñëw ci yow kan moo bugg tiiw di yiw ngay joxe mais <laughs> na ko doyal ba pare yow na nga ci am ba doyal sëkk sëkk sëkk nga du ko partager mais ñooñu di woote sax boo demee si ñoom nga xool seen melokaan ak seen i nekkin allahu akbar da ngay xam ne képp ku ànd ak sa xel da ngay xam ne fii de ah, li fi nekk ak li fi war a nekk daal bokkul ok yow da am yiw ba di ko joxe waxuñu la nag kuy dimbalaate waxuñu la kuy dimbalaate kuy dimbalaate moom bokk ci waaw ah. ñu fi nekk nan ku bugg lii ku bugg laa kaay fii ku bugg mel nii ku bugg mel naa kaay fii ku bugg lii mel nii wala lii mel naa kaay fii ñooñu bu ñu mënalee seeni bopp seen bopp lañuy ñuy njëkk a taxaw ak jamono ji mu mel waaw kon affaire yi dañ koy leeral waaw dañ koy leeral mbubboo mbubbu diine rango bagaasu diine di toog sa béréb naan da nax nit ñi ah, laa alquran leeral te yonent bi leeral ko de am na ñu koy leeral waaw am na ñu koy leeral su ko defee ah des na ka nga xamante ne mooy déglu ñaari volets yi bu dee lëndëmaay moo la gënal demal suubu ci lëndëm waaye dox ci lëndëm de wóorul waaw di dox ci leer lu ne fàng nga gis fa ngay dem nga gis fa ngay dox mooy lu wóor ndax dara du la bett da nar a bett di nga ko gis waaye dox ci lëndemaay loolu wóor waaw am nañu yàlla sàmm ibnu si nee na fa iza jaa iblis nee na iblis bu dikkee kenn ci yéen fa qaala mu ne la kam daawtuhu ñaata yoon nga doon ñaan yàlla wala tara ijaaba te boobi léegi gisoo benn màndarga buy wone ne la ngay ñaan nangu na nee na iblis bu la laajee lii fa qul ci saasi na nga ne anaa man de ataabadu bi du'a damay jaamu yàlla ci ñaan yow soxna si bu la iblis dikkalee waaw ndax yéen bokk na lu gën a bari ci yen yéen a gën a gaaw tànk jëm ci gaay yooyu boo tax ibnu jawzi ne la ñaata yoon nga nekk fi di ñaan yàlla te yàlla bi léegi bañ naa nangu sa ñaan doo dem si gaañi sama gaañ yi ñi ma alliel ñi ma ñi ma associé <laughs> waaw iblis nee na faqul bu la waxee lii ibnu jawzi nee na faqul na nga wax iblis anaa man de ndegem jaamu yàlla la te yonentu bi nee na jaamu yàlla bokk na ci ñaan yàlla te yàlla moo ne ñaan leen ma mamee leen nga ne ko man de damay jaamu yàlla ci ñaan ana ata abbadu bi du'a damay jaamu yàlla ci ñaan mu nangul ma dama ñaan mu bañ maa nangul dama koy ñaan moo ne dañ ne ñaan mangu ci ñetti béréb bu ci jiitu mooy mën nañ laa may langay ñaan ngi gis ko mu doon lu terre à ñaareel bi mooy mënees nañoo jël ñaan dugal ko jaarale ko sa diggante loraange bira na la lor ci doo ko xam moo ne mënees nañ la ka dencal békk rek yowmal qiyaama nga ñëw ñu takk bi mu dëgër ñu ne la la nga doon ñaan gisoo dara ci loolu ngay ñaan ci àddina fii la lay njariñ yàlla daldi la ko yebbil sottil la ko ci sa balansu peesukaayu jëf keroog ngay xam ne ah ndeke man la ma doon ñaan te musumaa xaddi fii la ma njëriñ yal nañu ko yàlla defal ni amin ya rabbal alamin moo ne bëgg nga waruwaay wala bëgg nga dikkuwaay wala bëgg ngaa tukki ngay ñaan yàlla di ut visa mu te mu jàmp nga foog bépp buntu mu dëgër yàlla xam na ne boo demee tukki boobu doo ñibbisi wala booy ñibbisi tamit ah doo ñibbisi ak sa sago waaw la woykat bi wax nee na am na ñu bitim réew manatuñu amatuñu waaw te dootuñu giseeg seeni njaboot ilaa yawmi diin abada waaw ndigem ñooñu bu ñu xamoon ne bu ñu tukkee nii lay demee ne kon woon ci seen ron keppaaru njaboot la ñuy toog waaw waaye ñàkk kaa xam moo tax bu ñu tukkee yàlla daal di leen wàccal natt boobu yal leen yàlla defal yiw bokk na ci yow mi ñaan yàlla dëkkuwaay amaana dëkkuwaay boobu boo fa dëkki ca jamono ba nga ko bëggee ak noo ko bëggee du moment woowu waaye ngay kërti kërti di kërti kërti di kërti kërti di kërti amaana xamoo ne boo ko sàncee ba mu sotti la la fay dal du neex sa jëmm ji du neex say mbokk amaana bés bankay pare pour di ko inaugurer keroog ah boo fa duggee booy génn tamit doo génn lala war a neex amaana amaana amaana kon yow xamoo yàlla mi xam moo tax mu nañu ci alquran asaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharru lakum wa asaa an takrahu shay'an amaana am na lu ngeen bëgg ci seen dund wi te loolu du lu gën ci yéen amaana ngeen bañ lenn ci seeni dund te loolu mooy li gën ci yéen yàlla jeexale aaya bi mu ne wallahu yaalamu wa antum la taalamuun la gën ci yéen yàllaa ko xam la gënul ci yéen yàllaa ko xam waaye yéen xamuleen lu gën ci yéen ak lu gënul ci yéen kon ñaan yàlla ba julli bi di talal loxo di ñaan yàlla na ko bàyyeeg ka muy ñaan mu defal ko lu gën ci moom jalla wa ala kii kenn la ci ña yar ci keppaaru ña yenentu bi yar di taabiuuna yi rahimahullahu taala rahmatan waasia te muy ibnu jawzi rahimahullah mbokk yi xam ngeen ne léegi ñu ngi ànd ak yéen ci waxtaanu fajar bay jaar fi ci réew mi fm 97.5 ñu ngi jublu ci waxtuy campagne électoral bi nga xamante ne mooy woote député yi ñu bëgg soññ ñenn ci ña war a taxawee ña nga xamante ne ñoom la yàlla nattoo ñu war a occuper poste boobu ñu bëgg leen dégtal député ba nekk ci gox ba nga xamante ne daa ñëw bëgg a joxe éclairage bu toll nii comme ni ko gaay di tuddee député du peuple gannaaw ba mu ñëwee wax waa gox ba yàlla yónni ñetti yonent à la ah, mu di leen soññ ne na ngeen topp yonent yaleen di woo ngir ngeen topp yàlla wéttal ko waa gox ba am la mu la jëflanteeg député boobu ah député ba jaaree fa nag ah, ñàkk bakkanam la ko yàlla fay ak na ko yàlla terare gannaaw bu mu teree teraayu bàmmel ba waa dëkk bu jëflanteek moom ba faatu moom lañ leen bëgg dégtal ana lan mooy doxalinu député ci pencum ndaw réew mi waaye ana wan responsabilité la député wala yor incha allah ndegem waxtu bi may nañ ñu ko bu ñu demee xool mbokk yi te suratu yaasin dinañu gis ci xit ba nga xamante ne mooy fa buur yàlla di waxee baada audu billahi min alsheytaan arrajim wadrib lahum matalan ashaabal qaryatin is jaaha al mursaluun yonent bi na nga jox melokaanu waa gox ba nga xamante ne keroog ba yàlla yónni ci ñoom ay yonenti id arsalna ilayhim usnayni fa kaddabuuhuma fa azzazna bi saalisin fa qaalu inna ilaykum mursaluun fàttalikul keroog ba yàlla yónni ci ñoom ñaari yonenti ci benn waxtu ñu weddi leen waa gox ba weddi ñaari yonenti yooyu ñu lànk ñu ne duñ leen déglu duñ leen topp yàlla daldi dooleel ñaari yonent yooyu kaleen ñetteel waa gox bi lànk bi tëdd si naaj wi ñu ne ñun de wedd nañ leen yonent yi ñu ne leen ñun de duñu lenn duñu dara ludut ndaw ba ñu yàlla yebal ci yen waa gox ba ne leen qaalu maa antum illaa basharun misluna wa ma anzala arrahmanu min cheyin in antum illaa takdibuun yéen sax du ngeen dara toju leen fenn du ngeen tus ba dara booloo lu dut nit ni ñun bu dee yàlla ner naa yónni li yónni keneen ko dut waaw yàlla bu naree yónni yónnante dina yónni jinne wala malaaka wala beneen mbindaa foon waaye du yéen lay yónni de waaye yéen sax est-ce que lu ngeen nekkee dëgg la ñun de dëgg lu ñu lu ngeen nekkee yónnante yi leen yónnante yi daal wax waa gox ba qaalu rabbuna yaalamu inna ilaykum la mursaluun suñu boroom de xam na ne ñun kat yàlla ñu yónni yàlla xam na ne ñun ay ndawam lañu ci yéen waaw qaalu ñu ne leen rabbuna suñu boroom yaalamu xam na ci xam-xamam bu leer nañ ne inna naka ñun de ilaykum ci yéen la mursaluun ñamu yónni ci xeet bi lañu yàlla xam na ne moo ñu yónni ci yéen te tamit wa ma alaynaa illa al mu mubiin ñun kat dara waruñu lu dut leeral bu leer nañ lañ leen wala leeral ne na ngeen war a jaamoo yàlla ngeen bay bokkaale yàlla ak topp seen bànneexu bakken walla topp seytaane ba nga nekke waa gox bi seen commentaire jeex na yonent yi jox nañ leen tegtal bu leer nañ xam-xam bu leer nañ débat d'idées bi ci pénc bi leer na nañ léegi waa gox bi nag comme ñoom ñooy opposition mbeeg ñoom seen amuñu dara lu ñuy wax lu dul di opté violente jëmale ko ci yonentu yi xaalu waa gox bi ne leen inna bi bikum ñu ngi leen di jox avertissement la in lam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adabun alim ñu ngi leen di jox avertissement waaw ñu ngi leen du tikku gis ngeen woote bi ngeen di woote nii gis ngeen dëgg bi ngeen di woote nii gis ngeen buñ ko sañee wax démb ak niroo tey jub jubal jubante bi ngeen di woote nii la illam tantaxu bu ngeen ko bàyyul gis ngeen système bi ngeen bëgg a soppi nii bu ngeen ko bàyyul la nar ju na narjumannakum dinañ leen jam wala yamasannakum minna adabun alim di ngeen ñam ci suñu mbugal yi lu mitti lu tar yonent yi ne leen amul benn problème waaw waa gox bi ñoo doon tëkk yonent yi ñu ne leen bu ngeen bàyyiwul li ngeen nekke dinañ leen jam wala nañ leen sànni xeer ah dinañu dinañu dinañu wàcc ci tali bi sànni xeer toj rajaxe ah <laughs> dimb niroo tey allahu akbar alquran day ànd ak wala wala yamasannakum minna azabun alim wala ngeen ñam ci suñu mbugal ñu leen waajalal mbugal yu métti ñu torture leen yonent yi ne leen xaalu yonent yi leneen yonent yi daal di wax seen xeeti taa'irukum ma'akum waaw xupp bi ngeen ñuy xupp tëkku bi ngeen ñuy tëkku ah yéena ko wax man des ak yéen rek a in zukirtum ah bal antum qawmun musrifun est-ce que amul kenn ci yéen kuy fàttaleku lañ koy woote jàmm la fañ koy woo jàmm la ci kañ koy woo kooku mooy keku bind moo xam la gën ci moom est-ce que amul kenn ki nekk ci yéen ko war a xalaat lii waaye nag ah yéen de yéen a ngi niroo nii aw xeet wi nga xamante ne mbuusuur ak folklore ak caay-caay moom ngeen tànn ngeen nekkee ko moo tax yonent yu ne bal antum qawmun musrifuun yéen sax ay xeet ngeen nga xamante ne da ngeen génn topp yenn affaire kàccoor affaire caay-caay affaire bandi daal moo leen neex moo tax ngeen di ñu tëkku ca lañ leen di woo mu doon lu jiw lu baax léegi nag député di peuple bi bu mu yégee lii moom dafa ñëw wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa qaala ya qawmi ittabi'ul mursalin député di peuple bi nekk ci biir gox bi mu daldi di dégg xuloo beeg bi diggante peuple bi ak yonent yeleen yàlla yónni ba mu ñëwee moo tax ay bi ne wa jaa a dikk na min aqsal madinati ci beneen gox ba ci catu gox ba waaw gox bi am na waaju fa babbeeku mu ñëw yas muy daw ay xël nara àtte diggante yonent yi ak peuple ndax xam na yonent yi lu ñuy woote xam na lu peuple bi nekkee ci seen caay-caay xaala mu ne leen yaa qawmi yéen samay nit yéen sama peuple ittabiul mursalin gis nga député peuple bi bu mu ñëwee mbokk yi moom dafa taxaw ci pénc bi woote peuple bi bu ko peuple bi wuyoo mu ne leen kaay leen mag yéen ñu topp yonent yi ah bu leen fàtte ne peuple bi dañ ne yonent bi ne dañu ne seen yonent yi bu ngeen baayul système bi ngeen mbarg soppi bu ngeen bàyyul jub-jubanti ak jubal bi ngeen bëgg tëral ci penc bi dinañu leen jam walla ñu mosal leen mbugal ju mitti ya nekk suñu système bi léegi yonent yi ñoo mucc nañu ci mbugal boobu waaye député di peuple bi moom mucc si moom bu ñëwee mu di leen convaincre di leen wax ngir ñu topp yonent yi ñu bokk adhéré ci la yonent yi di woote lañ ko def moo nekk suytu aay bi moo ne dañ ko ne dafa ñëw mu ne leen yaa qawmi yéen samay xeet ittabiul mursaliin na ngeen topp yonent yi ci lañ leen di woo ak fañ leen di woo ittabiu man laa yasalukum ajran wahum muhtadun ngalla waaye na ngeen may nopp ñoo xamante ne sàkkuñu benn peyoor ci yéen ca lañ leen di woo waaye ñoom de dañoo yore système bi nga xamante ne képp ku ci tënku di jub dinga baax di nga mucc ayib te dinga mucc ci doxalinu seytaane député peuple bi ba léegi mooy joxe discours bi mu ne leen wa maa liya la aabudu alladi fatarani wa ilayhi turjaun man kat awma dara li ma fi am awma dara li ma fi war a nekkee li ma war a tere jaamu ko nga xamante ne moo ma créé moo ma bind te la ma nekkee moo ma ko jox slogan ba may wax ak yéen moo ma ko may la ma am moo ma ko jox poste bi ma am moo ma ko jox te bu ma noppee ci dund bi ci moom yàlla lay dellu mbokk bi ndegem lii mooy discours député du peuple ba ñoo taxaw jàkkaarloog askanam mu di leen laayee biir di leen conscientiser li nga xamante ne mooy la yenent yooyu andi askan ba mu bokk muy wax ak ñoom ñu daldi ko toroxal ñu daldi ko beddi ñu daldi ko maal mane ne ba bakkanam dessi waaye nag la topp ci aaya bi mënuñu ko waxtaane ci waxtu bu gàtt ba ñu dese waaye incha allah du ñàkk bu ñu delsee ci weneen jamono ñu fas yéene wéyande ki yéen ci député peuple boobu doon wax askanam ne leen ittabiu almursalin ittabiu man la yasalukum ajran wa hum muhtaduun wa maa liya laa aabudu fatarani wa ilayhi turjaun moo ne jàmmu leen topp leen yonent yi nga xamante ne sakkuñu ci yéen benn payor waaw am na léegi-léegi da gis ay mitin yi nga xamante ne dangay dangay da ngay da ngay yi waaye ñi sàkkuñu ci yéen lenn lu dul ngeen topp ñu su ko defee ñu orienté leen jubal leen mu ne leen man mii sax ana lu may tere la nga xamante ne damay bañ a jaamu ki ma bind te ci moom lay dellu mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñay joxe xibaar ñu ngi ni taxaw ñu fas yéene leen jébal bërëb bi incha allah subhaanahu wa lu jub si kàddu gi ñu santee ko yàlla la ci dëng yenn ñu ko yàlla boolee jégal amin ya rabbal alamin